bismillahi wa ala millati rasul wa manhajil qadim asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu e di fa séene tëje rek li ñu ubbee woon bi niyatil xayr wa xawlil xayr wa filil xayr ci njàngaleem ku tedd ki di sukkandiku ci yéene lu baax fas yéene di ko wax fas yéene di ko doxe ci tolluwaay bii jamono toll rawante nag ci sunu réew mi te lii ñuy tudde am mbas te accaparé àdduna bi yépp nu doon ci gaaral ay kàddu ci suuf bi xale yi taxawal seen kuréel bi nu wax leen ci li nu leen ci wax ba tax na maski demewoon demee fi ni mu fi deme ngir ñetti mbir bi ci jiitu mooy li nu nekk ay sénégalais am état état bi amal ay dogalam ci gàttu njiitu réew mi di Raïs ñaareel bi suñu kilifa a Cheikh Mouhamadoul Mountakha soññee ci ngir li docteur yi wax ni ci diggante saytu ak moytu ci xew-xew bii nga xam ni mooy tawat ji zaahir ak baatin moo am bu dee ku demee ni ñun ñu demee ni ñun nga xam ni mën naa àlla ya bi hulumil asfia wa bi kitaabatiya kulla dash fiya dañu koy bàyyi xel ak allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani sifa min kulli daa muqaddari loolu gënuñu koo xam kilifa bi moo ko gën a xam te mooy sunu kilifa te teewul mu jàngale li nga xam ne mooy zaahir si waaw muy mesure barrière yi nga xamante ne bii dañu koy jëlu citoyen bu nekk war ko respecté ñun ñu nekk responsable war a soññee itam sunu njaboot ak ñi ñuy déglu di xamal kilifa gi cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te ak cheikh Mouhamadul Basir xalifa cheikh Ibrahima Fati di leen xamal ni li kilifa gi wax te muy dogalub état bi te kilifa gi di ci soññee murid yëpp murid yëpp am na nañu yéene jëfe ndigal loolu nga xamante ne bii Serigne Mountakha daf koo jox ñépp te mu doon ndigal loo xamante ne bii digaluñu la ko ngir kenn dañu la ko digal ngir sa njariñul bopp. loolu suñu warugar mooy yaatal ko jàllale ko ba Sénégal yëpp di ko dégg waaw Sénégalais bi nekk ci réew mi ak bi nekk bitim réew ñëpp xam ni noo ngi soññee ci loolu waaw néew ñu dañuy wax ci kàddu Serigne Mountakha ndax am na ku ko waxal néew ñu dañuy wax ci kàddu ba Bassirou Anta Niang ndax am na ku ko waxal waaye dañuy wax en tant que dongo en tant que jëwriñ en tant que njiit waaw moo tax ñu ciy soññee xale yëpp.